mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew Rewmi FM dalee nag jàmm ci seen émission démb ak ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee actualité moo waral ñu euh, war a waxaat ci tàggat yaram wax ci surtout kilifa yi nga xam ne ñoo ko ngànkoon war ci it dalalaat euh, Mbaye Jacques Diop suñu mag euh, suñu naataango di conseil technique ci ministère des sports Mbaye Jacques ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci démb ak waaw Fatou maa ngi leen di nuyu di la fay euh, di nuyu aussi euh, les le personnel d'abord euh, technique rédactionnel et administratif du groupe Rewmi FM hmm. di tottal nuyoo bi aussi sama grand frère mi nga xam ne mooy le PDG le président Mbagnick Diop di nuyu aussi tous les auditeurs di leen ñaanal en tout cas week-end jàmm ak salaam ci seen njaboot ak ci seen ay am ci jàmm. Mhm. jërëjëf Mbaye Jacques euh, ñu ngi lay ñaanal yow itam euh, jàmm di ko ñaanal sa njaboot <laughs> euh, li waral nag nga ñëw ci réew mi ci yoon yu toppante yi pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu te certainement remarqué ni Mbaye Jacques géeju fi mooy ni ñaar ñi ñu fi waxtaanee ñëpp da nga di ñu leen jege woon lool xam leen lool je me rappelle bi ñuy mujjee def émission yaa ngi tudd président Malick Sy Souris mi ñuy waxtaanee tey euh, te booba xëy na li xew xewagul euh, kon yow ku la woo ci ku mel ni président euh, Lamine Diack wala président Malick Sy Souris yaakaar naa ne lu jaadu lay doon te lu lu nit ñi mën a comprendre la kon Mbaye Jacques dañuy waxtaanee tey El Hadji Malick Sy Souris muy koo xam lool muy koo jege lool koo sékkaloon lu bari yàlla jël ko àjjuma ñaar fukki fan ak juróom weeru février ba weesu ni ko baaxoon nag ci démb ak tey kilifa yu mel nii Euh, bu ñuy dund sax dañu leen di waxtaanee waaye bu nu fi jugee rawatina ndax am na yu bari yoo xam ne xëy na nit ñi war nañu ko xam ci ñoom euh, lu ñu jotutoon xam ñu kon war a waxtaanee euh, kookee nga xam ne moo njëkk a yóbbu Sénégal ci quart de finale coupe du monde yóbbu nu itam ci final coupe d'Afrique Mbaye Jacques kan moo doonoon président Malick Sy suri waaw d'abord damay delloo rek di ñaanal d'abord président El Hadji Malick Sy jéggal ko ay bàkkaaram atte ko ci yërmandeem xare ko fir si jannatu yu gën a kawe euh, teg loxo nday jooram ci njabootam sàmm njabootam lépp lu mu mës def lu baax yàlla fay ko njabootam yàlla fay ko ko aussi te rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sang sang yi teeru ko ci firdawsi euh, bu ñu waree wax ci El Hadj Malick Sy Souris dina yomb dina jafe hmm. parce que am na ñoo xam ne ñoo gënoon habilité wax ko ku mel ni par exemple Majib euh, seen ku mel ni par exemple euh, Maam Tuuti ku mel ni ñoom Daam euh, ak ñoom donc Yves Diagne ñooñu ñëpp ñoo gënoon habilité pour wax ci El Hadj Malick Sy Souris mais xëy na ay gàllankoor wala xëy na ay yaram yu sutante wala ñàkk jot moo tax tey ma ñëwaat pour waxaat ci El Hadj Malick Sy El Hadj Malick si Souris nag dafa doon sunu kilifa nijaay la ci ñun mag la ci ñun mais aussi kilifa la ci ñun même ku mel ni Ablaye Makhtar Diop sax mën na wax ci Souris parce que ànd naa ak moom au niveau du parti socialiste au niveau du gouvernement euh, du président Abdou Diouf donc ànd nañu aussi dans le mouvement sportif donc mu nekkoon sunu kilifa goo xam ni euh, dëkkoon Médina nekkoon aussi kilifa gu mag goo xam ni mu nekkoon euh, un grand footballeur international bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon les vainqueurs de la coupe de l'amitié 1963 donc euh, loolu rek déjà moom mooy premier trophée major yi nga xam ni Sénégal jëla mu boor fukkoon fa nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, feu Youssoufa Ndiaye bokkoon fa ak ki nga xam ni moom mooy euh, kii ñuy wax ñoom Lamine Koura ñoom Demba Coy bokkoon fa ak ñi nga xam ne ñoom yax ma Diouf ñooñu ñëpp ak ñoom Domingo Mendy donc loolu moo lay won ni donc kilifa la woon. Hmm. mais mu nekkoon aussi koo xam ni euh, model la woon. modèle la woon parce que sportif la woon mais aussi jàngkat la woon. Hmm. parce que ni ngi jàngee université de Dakar man mos na ma ne moom euh, le président Ablaye Wade jàngal na ko économie. à l'université de Dakar. Hmm. donc loolu moo lay wan ne te c'était en c'était mu ne en 1962. waaw président jàngal en économie. à l'université de Dakar donc loolu moo lay won ni kon moom kilifa la woon mais aussi da allié woon na sport étude xam nga soo allié sport étude mhm. donc da ngay loo xam ne parce que dañ la daan wax bu njëkk su fekkee ne da nga euh, sa jàng gën a ubbeeku mhm. da ngay pratiquer sport mhm. mais mu yaroo aussi kër goo xam ne dañ ko yar ay kilifaam dañ ko yar xam nga dëkk Médina nekk référence dafa jafe woon à l'époque parce que na ma yàlla baal Médina peut-être que euh, tur bi wagoon na mais un quartier boo xam ni a avait tout melting pot la woon. Mm-hmm. nga réussir woon fa dina yomb comme dina jafe nga échoué woon fa moo gënoon yomb. Mm-hmm. par def ko moom El Hadj Malick sax wax na ma ne Alassane Ndiaye Alou jàngal na ko champ de course. Mm-hmm. Alassane Ndiaye Alou le grand journaliste. donc yooyu yëpp man dama daan toog ak di waxtaan ak moom parce que nee sama kilifa la woon. moo ma dugaloon sax euh, au niveau de la fédération au niveau de la commission communication de la fédération bi fa à lintaal bi ko lintaal yore bi Cheikh Tidiane Fall après la coupe du monde 2002 dem lintaal bu soleil yor ko mu dugal ma dans la commission man ak suma sœur bu ñuy wax Astou Yoroba hmm. ñu ngi Espagne léegi donc mu nekk koo xam ne aussi lépp lu ñu mën a wax kilifa la woon hmm. mu aussi liggéey ci administration liggéey ci sport liggéey ci diine hmm. parce que ñun maa ngi fàttaliku bu laylatul xadar joteen wala tamxarit amoon na kër gu nekk fële ca yeen falaañ daan daan dem euh, le matin hmm. di fa wàccee ay kaamil di fa def ay taysir hmm. wàccee kaamil bu guddee ñu def fa taysiir ak lépp loo xam ne ci diine la jëm donc loolu moo lay wan bu xoolal bu bu laylatul xadar jotee ak bu tamxarit jotee hmm. dañ daan dem kër ga nekk ci yeen fa lañ daan fanaan suba lañ fay dem buñ fa jógaatee le lendemain donc vingt quatre heures après lépp wàccee kaamil ak alxuraan ak diine hmm. dañ fo doon waxtaane ak juli hmm. donc loolu moo lay wan ni donc amoon na ñetti fànn hmm. fànn bi nga xam ne dafa liggéeyal askanam muy réewam ci wàllu koom-koom ci wàllu économie ci wàllu servir état beneen wàllu ci wàllu sport beneen wàllu ci wàllu diine ñu ñëw ci administration facette boobu bu El Hadji Malick Sy Souris euh, loo ñu ci mën a retracer ci parcours am. waaw administration El Hadji Malick Souris luñ ci mën a tracer ci parcours am euh, bari parce que moom bi mu génnee université de la Dakar dem na Montpellier jàngi. Hmm. bi mu jógee Montpellier ci la ñibbisi bi mu ñibbisee ci la nekk inspecteur euh, nu mu tuddee inspecteur des impôts et domaines donc à l'époque cadre yi Sénégal da leen doon compter. Hmm. ci du bout de doigts inspecteurs yi ñoom la woon ay Ablaye Diaw Chimère ay ñoom Lamine Diack moom parce que Lamine Diack moo ko jiitoo Lamine Diack magam la woon ñooñu mu nekk ñoo xam ni euh, nu mu tuddati Lamine Diack moom Ablaye jaw Chimère laa wax ak ñu nekk bariwu ñoon ak ñoom juri ñooñu ñëpp ñoo nekkoon ay kilifa yoo xam ne ay inspecteurs des impôts et domaines la ñu woon boobu c'était pratiquement la yo l'autre hiérarchie administrateur civil nga doon xam ak inspecteur des des des impôts et domaines ñoo doon pratiquement les fonctionnaires yoo xam ne ñoom ñoo gënoon màgg ci administration sénégalaise. Mm. mu nekk fa liggéey impôts et domaines nekk fa inspecteur bi mu nekkee inspecteur liggéey fa nekk inspecteur des impôts et domaines jóge fa après ñu yóbbu ko au niveau de la poste mu nekk le directeur général de la des postes et télécommunications xam nga boo nekkee dans une régie financière. Mm-hmm. donc après ñu yóbbu la foofu. pour pour mu redresser poste. macha allah bi mu nekkee poste. poste bi après dafa am benn rayonnement boo xam ni tout le monde voulait travailler à la poste ou bien tout le monde être à la poste. dekkalaatoon na poste daal. dekkalaatoon na ko parce que ñoom ay borom xam-xam yi la ñu dañuy nekk ci registre financier dañu xam nu ñuy suuxalee nu ñu suuxatee mm. euh, euh, structure. Mm. mu jógee au niveau du ministère de la de de de mu jógee au niveau de la poste ñu ne ko ministre du tourisme. Mm. ci ministre du tourisme boobu ci la noué ay relation noué ci ay relation bien que boobu aussi mi ngi woon ci football bi noué ci ay relation ba ci la tiisee ay relation moom ak nga xam ne moom mooy euh, Monaco à l'époque mm-hmm. waaw ci la Monaco ci la ci la nekk ministre du tourisme jóge ministre du tourisme après mu jóge fa jóge ci gouvernement bi ñu ne ko délégué au secteur public et parapublic boobu secteur public bi ak parapublic bi boobu y avait des établissements publics ñu ngi ko doog créé mooy EP yooyu ngay gis établissement public yooyu ngay gis comme par exemple ay coupe woon ay yeneen sociétés yoo xam ne ay port ak yooyu yëpp c'était des établissements publics il fallait réformer il fallait aller vers la réforme mu participer c'est à la réforme du secteur public et parapublic donc ci la fa jógee après pratiquement ci la jëlee retraitam ci la jëlee retraitam après ci lañ ko nommé comme comme euh, du conseil d' administration du port autonome de Dakar donc loolu moo lay wax woon ne kon il durant toute sa vie il a servi son pays il a servi son état il a été un grand commis de l' administration et de l' état du Sénégal mm-hmm. alors après facette boobu euh, Malick Soussoury mi ngi ci sport bi euh, sport lu mu pratiqué la d'abord balaa mu di si nekk dirigeant euh, boobu itam xar kanamam euh, loo ñu ci mën a wax. waaw xam nga euh, dirigeant sport bi xam nga loolu dafa curieux nga juddoo Medina dem Zégi Zia xam nga loolu paradoxe la Medina jaraaf fa nekkoon. Hmm. et à l'époque sax il y avait le foyer France Sénégal donc xam nga c'est c'est un peu bizarre quoi dafa doon paradoxe yow nga juddoo Medina nga xam ne da ngay génn seen no mi ngi dëkkoon Régis. Hmm. angle 27 da ngay jàdd rek dugg école Medina nga dem Zégi Zia parce que il est parti à la gendarme à l'âge de 13 ans man loolu moo ma ko wax. Hmm. waaw nee na foofu la defee catégorie am yëpp cadette junior ba équipe première waaw. lu ko teree dem école Medina. xa peut-être kenn xamul xam nga destin bu la bu ñëwee. Hmm. comprendre nga donc bu la bu la bu la bu destin ñëwee bu la destin wuy see doo xam lu tax destin bi kii. Hmm. mu dem nekk aussi un très très grand footballeur. waaw hmm. après dem na sax concours des jeunes footballeurs il s'était classé quatrième moo ko wax quatrième man ma daan toog moom nii. Ah. quatrième concours mu ne boobu à l'époque amoon na ay footballeur yu ko gënoon ay ku mel ne ay sunkara yu ñuy wax bu nekk foyer ak ay petit taal xaw ma. Hmm. man fàtte naa ñooñu ñooñu la ma doon wax. donc xam nga ñooñu nee na boo boo nekkee ñoom nga jël quatrième yow da ngay gën a gëstu pour ñafe pour xalaat ne comprendre nga. Hmm. waaw. alors GIA googu mujjee na dem ba nekk fa dirigeant. GIA mu nekk fa dirigeant mais balaa moo nekk dirigeant GIA nekk na international de football. waaw capitaine équipe du Sénégal moo a waaw mu nekk international de football. Mm. comprendre nga ak les Jeux de l'amitié ak ñoom Youssoufa Ndiaye ak ñi ma la limal sànq ñoom Lamine Koura ñoom euh, Domingo Mendy ñoom Louis Gomis yu mag ñooñu comprendre nga donc ñooñu ñëpp ñu nekk ay sommité yoo xam ne j'ai équipe nationale j'ai na ba 62 63 après mu arrêté carrière am parce que dafa dem jàngi France mm. amee maîtrise au niveau de l'université de Dakar voilà parce que defe naa ni nee na ma mi ngi am en 1965 ki la carrière mm. euh, boobu mi ngi doog a am licence à la faculté. Mm. waaw 1965 boobu maa ngi waxtaan ak moom parce que man chaque fois dama doon dama doon jël ay mémoire am 1965 mu après ci dem France dem à l'école des impôts de France mu ne foofu la arrêté parce que bi muy arrêté carrière am il avait tout juste 27 ans ah. 27 mm. ans nee na mu nekk xale bu ndaw arrêté carrière am mais boobu il avait opté pour. jouer ce qu'on a pour faire une carrière dans l'administration voilà léegi nag ci ci wàllu woowu parce que moom à l'époque a ak ñoom papa ñoom Omar Gueye Sène ay ñoom Sayer Sène hmm. xam nga ñoo ñoo dëkkoon Médina ak Gueule Tapée ñoo doon hmm. ay ay ay ay naataango la ñu woon ay nawle la ñu woon hmm. donc xam nga loolu moo lay woon ni donc au-delà de sa dimension euh, sportive il, il a aussi cette dimension euh, sociale boo xam ni peut-être que yow tu t'identifies à quartier tu t'identifies à des couleurs d'un club mais n'empêche que tu as yoo xam ni bokk leen club ku mel ni par exemple Sayer Sène il mm. jouait à l'US Gorée et donc ñoom ñoo doon ànd mm. donc gis nga loolu voilà bàyyiwul ay nitu dembam euh, léegi moom lan ak en fait transition bi naka la demee diggante sportif bi ba si dirigeant sportif bi waaw dirigeant xam nga dirigeant mm. sport tu l'as dans c'est sociologique da nga koy am ci sa deret mm-hmm. soo ko amee ci sa deret da nga koy continuer parce que Souris bi mu ñëwee. Mhm. bàyyiwul sport dafa ñëw nekk inspecteur des boobu à la boobu à soo xoolee. Mhm. tous les cadres ñu ngi leen di affecté avec la réforme de Lamine Diack en 1969 ñii ñu ngi leen di yóbbu Sia ñii ñu ngi leen di yóbbu Gorée yenn fonctionnaires yi ñu ngi dem. jàppale ji set équipe bu région yi comme par exemple l'US Rail à Thiès. Mhm. comme ku mel ni Ababacar euh, euh, Ababacar Ndir Papa Maymouna Ndir journaliste. moo nekk sur après la réforme président de la fédération sénégalaise de football. donc ñiy dem Louga jàppale ji euh, Ndiambour ñiy dem Linguère jàppale ji foofu y avait la réforme donc on il fallait ñiy dem ay Casa Sport suri aussi des Dakar comme que moom GA la xamoon mu ñëw militer à la gendarmerie de Dakar bi mu ñëwee militer à la gendarmerie de Dakar au fil du temps aussi muy jàng ci ay enem jàng ci ay magam ba gars yi xam ne kii war na mën a nekk tey un dirigeant jox ko le club de la gendarmerie de Dakar mu nekk gendarme aussi <laughs> nekk fa Euh, kilifa goo xam ne aussi kilifa bu mat kilifa la defar Jeanne euh, euh, jox Jeanne d'Arc dimension boo xam ne pratiquement Jeanne d'Arc soo xoolee vers les années 74 c' la première équipe a se qualifier en demi-finale de Coupe d' Afrique ak le Kara de Brazzaville mm. boobu donc équipe bu Jeanne d'Arc koy fàttali comme dem mais xale bu ndaw laa mais je me souviens très bien de cette équipe là donc loolu moo lay woon donc dirigeant la woon boo xam ni ku mëtoon dirigeant la mm. waaw boobu soo xoolee euh, équipe bu gendarme ak Jaraaf ak gore ak Linguère ñoo doon pratiquement euh, les les grands clubs yoo xam ne ñoom ñoo doon def la rivalité au niveau en tout cas du du, du Sénégal. Hmm. ak à un degré moindre Rose Rail waaw il faisait peut-être euh, euh, office de de trouble-fête équipe yooyu ñoom ñoo doon peut-être euh, aussi des fois bu fekkee ni kii bi métti na ñu xaw a sonal tuuti ay Jaraaf ay gendarme ay Gorée le titre se disputait en ces, ces trois clubs-là, la Gendarme, le Djarab ou l'OS Gorée. Après, il y aussi la création aussi de l'AS Police qui est venue, tout comme aussi une équipe comme la FOA, ci la équipe yooyu ñëwee aussi xaw a sonal un peu la le Jaraaf euh, xaw a sonal un peu xaw a sonal un aussi le Jaraaf après aussi ci la ñu créé aussi la SCIB mu ñëw hmm. donc loolu da lay war ni donc processus boo xam ne la woon bu amoon kii la quoi bu amoon processus bu bu bu bu bu nan laa la ko mën a expliquer euh, processus euh, bu bu yàggoon la te xoolal suri hmm. euh, nekk na aussi dirigeant mais nekk entraîneur junior GA. ah waaw nekk entraîneur junior GA. parce que ñoom ay éducateurs la ñu woon dañ daan gis ay xale. Hmm. ñu xam ne lii c'est la petite catégorie. bi waaw surtout lañ doon gën a toppatoo. ñoom ñu ñëw donc créer fa benn dynamique boo xam ne xam nga dynamique boobu dina permettre. xale yooyu nekk des citoyens de demain. Mm-hmm. parce que maa ngi fàttaliku Famara actuellement Famara Sané le secrétaire général de la gendarmerie de Dakar mm-hmm. actuel. moom ko wax ci dañu suuli ne moom suuli moo nekkoon seen entraîneur quand ils étaient juniors à la gendarmerie de Dakar. donc vous voyez. Mm-hmm. donc loolu da lay wan ay kilifa la ñu ay kilifa la ñu woon ay kilifa la ñu woon ba yàlla def aussi mu ñëw ñu jël ko euh, jox ko euh, euh, Euh, jox ko jox ko nu mu tuddati jox ko euh, fédération sénégalaise de football en deux mille deux. Mhm. en un la ko ko jox deux mille un c' était pour peut-être. Euh, waajal deux waaw mais bien avant ça aussi boo xoolee El Hadj Malick Sy moo fi njëkk am idée bu Sénégal qualifié CAIR 86 mu ne nañu nañu nañu kettal Sénégal pour ñu am budget à l' époque le budget tournait autour de deux cent cinquante millions xamu deux millions. moom moo indi initiative boobu pour que comprendre nga sénégalais yi cotiser pour kii. pour équipe bi waaw ci la sénégalais yi pour équipe bi am. xaalis pour dem Caire 86. donc loolu moo lay wan ne ñoom ay borom xam-xam la ñu woon dañ doon xalaat loo xam ni. Mhm. mën na apporter un plus ou bien une valeur ajoutée à l' équipe nationale du Sénégal. Mhm. mu liggéey aussi ci Caire euh, euh, euh, Sénégal 92 aussi. Mhm. Sénégal 92 aussi il faut pas l'oublier aussi. mu liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey bu bu bu ay boobu El Hadj Malick Souris moo doon président fédération boobu Ablaye Makhtar Diop nii moom le ministre de la jeunesse et des sports. Hmm. Daouda Faye moo doon président du comité d' de la coupe d' des nations. Hmm. ñu liggéey ci liggéey bu am solo bien que xëy na boobu pratiquement affaire bi doxul woon noonu comme ni mu war a doxee parce que dañu éliminé en quart de finale. Hmm. mais boobu aussi euh, football mi ay grand équipe grande équipe yoo xam ni peut-être que yenn dëkk yi sax amuñu ko woon. Hmm. yenn dëkk yi sax amuñu ko woon. boobu euh, équipe du Sénégal bi équipe du Sénégal da nga daan gis ay équipe du Sénégal yoo xam ne ay locaux ñoo fi nekkoon ay Ousmane Tongaan hmm. hmm. ay Cheikh Seck ay Amadou Diop ay Ibrahima Diakhabi ay Baba ay saajo Demba yooyu yëpp aussi ñoom ñoo ko liggéeyoon parce que ñoom dañ doon xool ne équipe yi. Mm-hmm. à l'époque su fekkoon ni période bii la kon équipe yi ay ay dinañ am au moins une dizaine de professionnels ou bien une quinzaine ou vingtaine dans leur club. parce que mm-hmm. on avait des joueurs yoo xam ne de de renommée. Mm-hmm. après aussi ci la ci la yàlla defee mu mu joge Jeanne d'Arc créer lu ñu wax le centre Aldo Gentina. ah waaw centre de formation bi ñu ngi ko créé en 1992. moom moo ko créé. waaw moom moo ko créé ak euh, le les gars de Monaco avec mm-hmm. un budget de cinquante millions. ok boobu bëggoon na woon Sénégalais yi. Mm. ak les clubs nan la ñuy demee vers le professionnalisme. Mm. parce que boobu centre Aldo Gentina dañu jënd benn terrain. d'accord wala am benn directeur di ko fay. Mm. am ay entraîneur am ay masseur ay manager waaw te centre boobu dafa créer ay xale yu bari. dafa dafa nan laa la ko mën a waxee dafa dafa comment il s'appelle dafa dafa dafa dafa créé dafa dundal ay xale yu bari. Hmm. suñ la nee dafa dundal ay xale yu bari mooy dafa créé ay. xale yu bari dafa wala ay professionnels. voilà voilà je cherchais. Hmm. il a produit beaucoup beaucoup beaucoup de de de jeunes footballeurs. Hmm. oui beaucoup de jeunes footballeurs le produire centre boobu parce que ku mel ni par exemple Salif Diao. la génne ku mel ni par exemple euh, euh, nu mu tuddati euh, am di Moustapha Faye la génne. ku mel ne Tony Mario Silva fa la génnee. kon équipe mil 2002 bi daal fa la génnee. ku mel ni Moussa Ndiaye fa la génnee. Mm. ku mel ni Souleymane Camara fa la génnee. ku mel ni un ki qui s'appelle xaw ma lan Samb fa la génnee. Mm. ku mel ni euh, par exemple Boubacar Sissoko fa la génnee xale yu bëri fa lañ génne. xale yu bëri bëri fa lañ génne fa lañ génne ci centre boobu mooy mm. centre centre Aldo Gentina bi. Mm-hmm. donc loolu moo ne woon aussi donc euh, centre boobu. centre boo xam ne woon bu amoon solo bu amoon njëriñ pour le football sénégalais. Mm-hmm. bu amoon njëriñ pour le football sénégalais parce que centre boobu moom moo jur euh, pratiquement l' équipe de 2002. waaw moom laa wax léegi. 2002. équipe de 2002. Mm-hmm. dama lay nettali rek benn euh, anecdote euh, bi président Souris recruté ki nga xam ne moom mooy Bruno Metsu bi mu ñëwee man ak Mama Sow directeur technique ñoo jëli Bruno Metsu aéroport. Mm. waaw parce que boobu jege naa ko jege boo xam ni presque lu nekk dafa ma ko daan dénk. donc man ak Mama Sow ñoo dem ci guddi ga. Mhm. jëli Bruno Metsu aéroport mu wàcc ñu accueillir ko. Mhm. yóbbu ko hôtel Novotel lañ ko yóbbu. Mhm. waaw ma xëy la lendemain mu woo ma dem jëli ko ngeen indi ko bureau. ma àndaat moom fekk fa Mama ci hôtel bi mu koy xaar ñu xaar Bruno Metsu jël si ko yóbbu ko ci bureau président Malick Sy Souris. waaw xam nga des fois di nga jege nit. Mhm. mais am na yoo xam ne yu bëree bëri doo ko doo ko mën a wax. dëgg la et dans le football aussi. Mhm. Euh, bi ñu nekkee coupe d'Afrique des nations ak coupe du monde de mille deux. Mhm. c'était la première fois que le Sénégal se qualifiait. Mmh. la première fois aussi que équipe nationale de football di dem a une finale de coupe du de coupe waaw donc mu nekkoon loo xam ne maar day taal yi dajale ñëpp ñëpp juboo nekk xol ak yëpp mu nekk fi une affaire boo xam ni kenn du ko fàtte. Mhm. alors bi mu yoree fédération bi mille 2002 boobu si si CAN bi d'abord lan nga gis euh, lu particulier si ni muy doxalee si gestion wam lan moo ko may peut-être mu mun a pousse équipe bi ba niveau boobu c'est vrai que ñëpp jàpp nañ si. mais quand moom moo nekkoon si bopp bi parce que moo jiite woon fédération bi. moo nekkoon si bopp mais xam nga la moo doon force am. Hmm. dafa délégué woon ay pouvoir am. d'accord. parce pratiquement le vice-président chargé de l'administration muy Bounama Dièye mm-hmm. Bounama Dièye mu mu mu mu mu ki le vice-président chargé de compétition internationale muy ndem si yàlla euh, Mbaye Ndoye parce que équipe boobu mm-hmm. dafa ànd àndagoon ay sommité ay Bounama Dièye ay Mbaye Ndoye ay Blaise Diagne ay Bobo Camara mm-hmm. ay ay ñëpp di ay kàngam si wàllu sport ay dem si yàlla Demba Sall ñaa ay kàngam yoo xam ne ñoom ñëpp ku nekk amoon na équipe bu mag wala ku nekk xamoon nga administration ak gestion du sport. sport ou bien mu délé ku nekk mu délégué la ay pouvoir. Hmm. Euh, dafa amoon benn style de management boo xam ni moo ko permettre loolu parce que xam nga soo nekkoon ministre nekkoon directeur général nekk président du conseil d' administration. da hmm. dem ba yow da ngay xam exactement. Hmm. nan nga war a def. Ah. pour ménager équipe. nan nga war a def pour doxal équipe. donc yooyu yëpp daf ciy ànd donc xam nga moo tax bi mu ñëwee bi mu ñëwee à la tête la fédération. mais fédération sénégalaise amuloon bureau amuloon siège. Hmm. amuloon oto amuloon dara. ah oui. kon ci informel lañ nekkoon daal. oui amuloon benn source de revenu fédération ay huit millions lañu ñu amoon comme kii ci la wooyee Pape Massata Diack doomu président Lamine Diack yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin waaw Pape Massata lépp cent millions de francs CFA. Hmm. waaw hypothéqué ay biens pour équipe nationale. ba pare Pape Massata garantir leen au moins six cent millions de francs par an mais loolu moo assurer indépendance su fédération bi ci lañ amee siège boo xam ne dañ ko équipé mhm. ci lañ mettre un règlement boo xam ne amul woon ay code de conduite au niveau de l'équipe nationale yooyu yëpp parce que loolu moo lay wan ni donc président Souris dafa musa am un leadership Hmm. kon daal dafa dafa professionnaliser gestion sport. Sénégal voilà dafa professionnaliser parce que mën nga am xaalis bu bari. Hmm. mais soo amulee ay manager soo amulee ay dirigeants yu baax. soo amulee hmm. ñoo xam ni. et loolu. xam nañu mën a doxal waaw de façon il faut le faire de donc loolu moo lay wan ni kon donc il a beaucoup beaucoup beaucoup apporté comprendre il a beaucoup apporté au football. après bon ñu dem Coupe d'Afrique des Nations dem finale. Mm. mais ci final bi yëpp ci ay baatin la ko doon ci ay ñaan ay wàccee kaam. yaa ngi ko fiy tudd keroog. waaw ci ay ay ñaan ay wàccee kaam. Mm-hmm. ñaan wàccee moom loolu moo doon dadaam. Mm. ak yore faatee salaatul faatee salaatul ala nabi. Mm-hmm. dafa délégué woon ay pouvoir mais moom ban rôle la joué. moom c'était le c'était le rôle du manager. ok xam nga xam nga xam nga dans un style de quand tu es un bon manager. tu mm-hmm. délègues tes pouvoirs. tu es dans le top management. Et en dehors du top management, il y a ce qu'on appelle Et ce que dit les gens vous déléguez vos pouvoirs vont être, vont être dans l'opérationnalité. Mm-hmm. Donc là, yow tu es au-dessus. Mm-hmm. Mais n'empêche aussi, ça n'empêche, pas. Des fois, a un droit de regard, xool mm-hmm. Il veillait surtout. c'était un, leadership qui lui permettait parce que amoon na expérience dans l'administration parce qu'il a été au plus haut euh, euh, euh de ce pays-là. donc loolu moo ko doon may loolu. Mhm. ñu dem mu dem euh, nu mu tuddati mu dem euh, nu mu tuddati fële euh, Coupe d'Afrique des Nations dem finale. Mhm. malheureusement on a perdu à la séance de tiro parce que dem nañu finale ba ñëw amuñu defet a Cameroun. waaw on a perdu à la séance de tiro bi en 2002 mu nekk si affaire boo xam ne bu rëy équipe bi ñëwaat ñu dem à la coupe du monde on nous a éliminés en quart de finale et on a failli passer de justesse malheureusement. Euh, li yàlla tudd kenn mënu ci dara foofu la kii bi jeexe woon mm-hmm. léegi nag bi ñu ñëwee après rek xam nga rek il y a eu une chasse aux sorciers mm-hmm. gars yi taxal ko ne moom il est il est il est il est il est à l'AFP mm-hmm. alors ko Souris soo xoolee son cursus même politique euh, euh, kii am kersaam moo tax demul ci politique parce que daawul xëccoo waaw su gisoon kenn ku ko gën a bëgg mu bàyyi ko moom te dinañ ci ñëw sur le plan politique à la Médina. Mhm. léegi nit ñi ne bon euh, euh, moom euh, nu mu tuddati nu mu tuddati AFP la après ñu tabax taxal ko ay affaire xaalis ak yooyu yëpp xam nga. Mhm. comme que xam nga ñoom ñëpp ñu manipuler leen même ay grands journalistes ñu wax leen ni comprendre nga il faut faire la lumière sur ay quatre milliards yoo xam ni kenn xamul lan la quoi. quatre milliards la mais ay quatre yoo xam ne ay fonds fonds les fonds de de la coupe du monde ak yooyu yëpp. d'accord mais. il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Hmm. Heureusement que le rapport de la Cour des comptes les a blanchis parce que moom c'est un inspecteur dès en même il est dans l'ordre de l'ordre des experts. Mm. donc xam nga kooku xam na exactement revue financière xam na exactement nan la euh, recette di doxee xam na exactement nan la transport di doxee. Hmm. nan la prime di doxee nan la nan nan la loolu dafa bokk ci ay euh, euh, ay ay aléas du football international. Hmm. après nit ñi doon wax ne way xaaj bi waroon nañ ci construire ay stade mais mu ne leen ay infrastructure sportive yooyu c'est de la responsabilité de l'État de parce que yooyu c'est c'est des c'est des c'est des dépenses de souveraineté mm-hmm. état warul sax bàyyi ñu naan wala yow fédération wala lii moo lay tabaxal stade mm-hmm. oui après ñuy wax woy chaque jour a touché presque cent quatre-vingts millions un bagagiste qui a touché quatre millions pour xam nga loolu yëpp pour rek ñoom ñu taxal leen pour ñu dem. Hmm. alors que ñenn ñoo nekkoon ci ginnaaw loolu. non xam nga boobu politique la boobu parce que bon y' a Moustapha Niasse premier ministre. quand il est quand du régime de Ablaye Wade bon c' questions politiques yoo xam ni peut-être que man mënu ci avancer wu de trop parce que maîtriser wu ma ko. mais c' est des rumeurs. maintenant des rumeurs ce ne sont pas des informations vérifiées. Mm-hmm. mais je sais ni il a été combattu. parce que aussi il avait réussi au niveau de l'UFOA, le président de l'Union des fédérations ouest-africaines. Mmh. Et les gens voulaient le porter à la tête de la CAF pour le remplacement de Issa Ayatou. D'accord. maintenant foofu aussi gars yi di ko xeex ci kaw. Mm. ba taxal ko sax ci affaire xaalisu UFOA ba suspendre ko. d'accord mais loolu yëpp mu gëm yàlla. Mm. parce que moom géré na poste télécommunication pendant cinq ans. Mm. nekk port pendant dix ans ak des dizaines de milliards. donc je pense que ay problèmes de gestion yooyu. comprendre que moom football bi mu fi ñëwee bénévole la fi doon. Hmm. parce que ñëw na football bi en quatre vingt six ñëw na en quatre vingt douze ñëw na en deux mille et lépp bénévole la da kon ñu koy laaj ay compte wax nga ma ni it daan na jël alalam di ko ci def. absolument déggoo lu ma la wax man su ma la waxee dara boog man sama wàllu bopp. Hmm. man daan na ci yónni ci yoo xam ne bugguma ko sax wax ci euh, kii yëpp ci ay ñaan. Hmm. yoo xam ay alalu boppam dafa ma daan euh, woo waaw bu ma ñëwee ñu toog wala des fois ñu dem fële case moom moo créé woon le collège africain sport étude bi ñu koy gis nga case boobu amul woon dara. Mm-hmm. bayal bu ban bayal bu kii la woon. Mm-hmm. ci gannaaw euh, kii la nekk rajo gannaaw TFM. Mm-hmm. foofu boobu ay briques rek fa nekkoon boobu sax kenn tabax ko man bi ñuy bi case paree sax dama ne ñii fan lañ jaar. waaw donc case man maa doon dem gu def la publicité ak di di yóbbu toutes les annonces là. xam nga yooyu yëpp des fois da ngay réussir benn affaire. ñu bëgg la taxal taxal taxal parce que réussir nga. Hmm. comprendre alors que moom dafa toog këram le ministre Joseph Ndong. Hmm. comprendre woo ko pour mu diriger la fédération. waaw ah. kon moom dañ ko jëli. waaw mais biñ ko jëlee mu ne leen attention man yéen a ma jëli mais il faut que je prenne mes collaborateurs. man hmm. maa jël sama collaborateur. après ñu ne ko non Euh, non ñii c'est le mouvement sportif Joseph Ndong moo ne ko noonu bàyyi comme que c'est le mouvement sportif mais ñun ñoo la coopté hmm. on lui a même reproché le de Bruno Miss ah mais, moom moo ko waroon gardé mais mooy leen du ko gardé parce que Bruno Miss dafa gagné hmm. ñëw di laaj ay disponibilité entraîneur amul disponibilité parce que yaa ngi bëgg dem lekk fële ay cent millions wala cinquante millions bëgg hmm. laajte mooy ko non il faut que tu parte bi ko président Ablaye Wade ñu waxtaan après président Abdoulaye Wade ne comprenait rien après ki la ko expliqué ci le président Abdoulaye Wade comprendre ne ko vous avez parfaitement raison moi je suis avec vous. Mm-hmm. ci départ bureau de Murcie parce que bureau de Murcie il avait demandé une disponibilité après le président Souris a refusé toute la presse en a fait écho di wax oui on a refusé à Souris xaw la lan ak lan ak lan ak lan ak lan yooyu. xam nga mm. voilà mais ñu ne leen disponibilité amul fi. après ci la toogee ne léegi sax il faudrait que ñu comme que Ablaye Sarr ak Amara ñu ngi fi am nañu expérience nañ leen jox équipe bi ñu jox ko Ablaye Sarr ak kii Ablaye Sarr parce que boobu Ablaye Sarr fekk am na expérience ak bureau de merci. Hmm, am na am na waaw am na expérience aussi ak Peter Schnittger donc ci la ñu commencé sax expertise locale. Hmm. voilà voilà. te tey boobu expertise moo nu may coupe alors bala ñuy ñëw ci euh, loolu ñu wax ci coupe du monde bi gannaaw kaan bi naka ngeen dundee coupe du monde bi ak président Souris. waa coupe du monde bi ak président man boobu coupe du monde maa ngi woon soleil ak coupe coupe du monde bi dañ ko def tirage ba pare fekk président dem boobu man je me rappelle après ma interview le président Abdoulaye Wade boo ko fekk mu ngi demoon benn sommet la euh, euh, sommet defe naa sommet Vitel lañ demoon. après bi ñu ñëwee c'était sommet un sommet France-Afrique interview le président Abdoulaye Wade ma ne le Sénégal va gagner par un but à zéro loolu du ma ko fàtte après le soleil même en ah, avait fait la une oui le Sénégal va ma bind ko on le soleil du journal ok léegi bi président souligné waxtaan mu français yi su gub xale yi gëmee ñoo leen mën parce que les les gosses hmm. sont plus jeunes ils sont plus frais et ils ont quelque chose à prouver contrairement boobu équipe de France y avait Trezeguet. Mm -hmm. y avait Dugarry y avait Zidane ah y avait Thierry Henry mais ay ay li big centre di Sarrazin ay. ay dañoo sax. voilà de renommée mondiale far yàlla def leen ak le bii de Pape Bouba Diop laa ñu gagné leen un but à mhm. après ci la ñu demee G Uruguay après bi ñuy G Uruguay mu nekk match bu métti métti métti mooy 3-3 yi. Mhm. ñu G am na ay anecdote yoo xam sax a ko wax ci rajo parce que ñu G assis ak contre la Suède. Mhm. contre la Suède moo gën a métti mooy bi ñuy a ñoom Henri Camara ak bi en or bi voilà kon boobu dañuy ñëw comprendre mm. man chaque fois bu amoon match président Sow may woo fekk dafa mos a benn blouson boo xam ne numéro 33 la mm -hmm. ma jaaxle quoi xaw ma xaw ma blouson bi lan la hmm. numéro 33 mais saa ñu fubalee hmm. mu ne ma dama wutal ma 33 ju wàccee kaamil d'accord blouson ba léegi maa ngi ko denc blouson Réal la hmm. man parce que bi ma mayee blouson bi xaw ma ne président bi ma may blouson 33 mais grave comme que le blouson le survêtement était très joli ma mhm. mais saa damay dem wuti 33 pas. 33 pas. Hmm. ñu wàccee kaan wàccee kaamil la dañuy wàccee kaan ñaan moom loolu moo doon kii wàccee kaamil ñaan. donc euh, ñu dem gagné huitième de finale. Mhm. la Suède dem demi finale ak euh, quart de finale autant pour moi ak Turquie Turquie gagné ñu mu nekk défaite bu metti on pouvait passer. Mhm. parce que on aurait pu être la première équipe à franchir le cap des demi-finales. des mais comme que la yàlla tuddul. Mhm. les gens sont revenus vraiment ils ont été euh, remerciés ils ont été vraiment. Euh, euh, en grande pompe par le public sénégalais ak yooyu yëpp. Mhm. ak yëpp daf lay euh, won ne euh, la vie. loo def du du réer. coono coono du réer borom lépp loo def te xam nga le président Souris il était aussi moi j'étais membre du con je, je suis membre jusqu'à présent du conseil d'administration de la fondation Abdou Diouf Sorwerty maa ci gënoon nekk xale mhm. boobu taaw Serigne Lamine Diop mhm. mais le président Souris était le vice-président et il est resté jusqu'à sa mort même du temps du régime libéral tous les gens avaient quitté. Mm -hmm. mais moom ak dem si yàlla Maïmouna Kane ak ñoom Falilou Kane ak ñoom euh, Waagaan Diouf ak euh, ñoom euh, Massamba sare hmm. xam nga ñoom Tata Coro ñoom Tata Khady Niang ils sont restés avec nous ak le général Seck hmm. ils sont restés avec nous parce que ñoom il n'en était pas question parce que ñu bari régime presse dafa woon rek ñu bàyyi la fondation dem hmm. waaw mais ils sont restés avec nous loolu moo lay won ni ñoom ils ont été toujours des gens yoo xam ni dañu dañu dañu dañu dañu gëmoon seen bopp ba pare gëm ay valeur am ay valeur am ay vertu parce que loolu moo gënoon jafe ci président Souris président Souris yaayam presque dund na cent et quelques années mais chaque ngoon fa lay julee tàkkusaan ak timis kër yaayam Médina chaque ngoon chaque ngoon fa lay julee tàkkusaan ak timis bu nekkee Sénégal waaw fa lay julee tàkkusaan ak timis bu nekkee nag chaque ngoon boo ko bëggee man bu ma ko bëggoon ko sax fa lay dem rue mhm. vingt xaar ko waaw xaar ko foofu su ma ñëwee ñu réglé li waaw des fois mu toog damay toog sax trois quatre jours gis moom mais Mbaye Jacques foo nekk man ko président maa ngi fii wala maa ngi jaar point la ma jaar par exemple heure yi laa fay jaar maxti bi ñu toog waxtaan xam nga bon quand tu es journaliste des fois xam nga et puis ñooñu ay ay postulat la ñu woon lu tax ma ne loon ay postulat la ñu woon hmm. parce que ñooñu dañu nekkoon ay kilifa yoo xam ni soo demee ci ñoom c'est une mine d'information dañ lay jàngal lu bëri waaw dañ jàngal lu bëree bëri bëri bëri hmm. man chaque fois des fois j'avais des informations dañ daan toog waxtaan nii de façon euh, euh, pratiquement de façon euh, open mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. mu jox ma benn information après ma koy laaj président ndax mun naa ko bind wala mun a mun a ma ah moom loolu moom c'est pas xam nga mm-hmm. donc wala lii xam nga ba pare il était un homme très généreux tout même président Souris li daan joxe ci xaalis wala li mu daan def non da nga daan yéemu ci yàlla da daan bàyyi njabootam defal nit defal nit ñi ba pare nag yar njabootam ci diine. Hmm. doo gis njabootam ñu ne la njabootam moo gën a def lii wala def lii wala def lii waaw parce que ba pare nag munoon sañse élégant. Hmm. sañse moom vraiment muy que ce soit. Euh, traditionnel ou moderne. Hmm. moom il était entre la féodalité et le modernisme. li nit ñi tee ci moom tam bokk na son sourire foo ko gis dangay ngay seen bëñ yi. loolu moo indi dàqantal bi souri wala leneen la. non non bi. ay ay camarades de classe am ñoo ko tuddee. d'accord bu nekkee primaire parce qu'il bougeait beaucoup. Hmm. <laughs> comprendre léegi nag après bon loolu la moom wax nettali quoi ne ma il bougeait beaucoup ay camarades de classe am tuddee ko suuli nag mu law. d'accord waaw mais tur tur bi jig na ko. Hmm. parce que du tur boo xam ni tour bu ko bu ko jege di la parce que hmm. jig na ko aussi. donc xam nga boobu mi ngi école primaire ak yooyu yëpp. mais en tout cas daal kilifa goo xam ni la woon. Euh, vraiment euh, koo xam ni dañ ko nawoon. nawoon ci lépp lépp lëpp lëpp lëpp lëpp lëpp lépp lépp mu aussi membre du du parti socialiste. waaw ci politique bi laa doon bëgg a ñëw sax. alors bi ngeen jógee bala ñuy dugg foofu mbay Jacques euh, bi ngeen jógee euh, Coupe d'Afrique bi euh, ak Coupe du monde bi kañ la ñu ko tàmbalee faqatal kañ la ñu tàmbalee gor ay tànkam yaa ngi évoqué ay ay ay ay raisons politiques. justement ñu jaaree foofu wax ci politique boobu boobu dafa jege woon Moustapha Niasse. d'accord parce du ngeen bokk parti. Mhm. mais ngeen jege. day am. comprendre nga ngeen jege ñu ñu taafantal ko parce que moom dafa jege Moustapha Niass ay ñoom mhm. Malick Gakou yooyu nekk ay doom ay jarbaatam parce que Malick Gakou mi ngi woon ci équipe am. ay yooyu yëpp léegi nag dañ lay dañ lay dañ lay tafee ñooñu. Mhm. rek pour combattre la. léegi xam nga en politique des fois wala da ngay bëgg réussir sax des fois sax ay noon bëgg la xeex. waaw buñ la buggee xeex mënoo ci dara dara dara dara dara dara dañ lay xeex par force. ñu commencé na AFP ay xaw ma quatre milliards yoo xam ni kenn xamul fu mu dugg ci la ñu arrêté ñoom bu naa ma jeey ñoom dem si àllo Oumar Ndiaye directeur administratif de la fédération ay ñoom Pape Massata Diack arrêté ay ñoom Boubacar Gaye yooyu yëpp te ñooñu ñëpp yàlla xam na ni vraiment liggéeyal nañu football liggéeyal nañu Sénégal liggéeyal nañu réew mi liggéey boo xam ne ñooñu dañ leen waroon sax décorer ku mel ni Boubacar bu naa ma jeey décorer woon nañ ko mais ba léegi jotul décoration man ci laay xeex ba léegi pour mu jot décoration ah dañ ko décoré woon mais après ñu arrêté ko mais bi ñu arrêté après ñu jox leen non mais ba léegi jotagul décoration donc loolu moo lay wan ni ñooñu comprendre ko donc il avait de grands dirigeants yoo xam ni daf leen encadré woon mais jox leen ay responsabilités parce que loolu moo doon euh, la force même du du du du président El Hadj Malick Sy mm. waaw parce que il a rendu vraiment un grand service <laughs> à à à l'économie du Sénégal en redressant la poste def fa cinq ans def dix ans au port sans compter les impôts le ministre du tourisme ak le délégué général du secteur euh, public et parapublic à la réforme mu nekk aussi à la fédération euh, de football mais bi ñu ko jógee bi mu jógee fédération football bàyyiwul sport parce que il l'a dans le sang il l'a dans l'âme hmm. ci la dem créer ce qu'on le collège africain sport études mooy CAS bi nga doon tudd sax waaw CAS moo am ay partenariat avec des Canadiens hmm. le CAS nekk benn structure boo xam ne da jàng di football waaw sport internat la woon. Mhm. waaw école bi ñu koy ubbi comme ci man demb bi ñuy tabax bi ñuy njëkk posé première pierre bi comme démb ci man nii. Mhm. ndem si yàlla Youssoufa njaay moo fa ñëwoon. Mhm. bi koy inauguré aussi moo fa ñëwoon. donc loolu moo lay wan ni ñoom ñaar ndeysaan mooy li ma lay wax rek kii di Youssoufa njaay kii di le président Lamine Diack le président Youssoufa Ndiaye ak le président Souris. dafa am lu leen liyee woon. moo tax soo xoolee ñoom ñëpp ci benn fourchette lañ demee. àdduna hmm. la ñu génnee àdduna. Hmm. pratiquement euh, dabante wuñu ay juróom-benn weer. loolu moo lay woon ni. ànd bu dëgg la woon ànd bu dëgg la woon. alors parti socialiste la bokkoon ça veut dire qu'il était aussi politique. waaw ouais, il était très hmm. politique. mais politique am bokk doowul def comme politique politicienne. parce que tur dafa commencé def du social à la Médina. d'accord bi mu nekkee poste. bu ñu nekkee poste jël ay joru gendarme yóbbu leen poste jël ay waa Médina yóbbu leen poste jël ay waa Jaraaf yóbbu leen poste ay waa Ouest Gorée yóbbu leen poste jël ñëpp ñi nga xam ne daal moom daal genre euh, kër baay defal ma yàlla defal yàlla la woon da jaamu yàlla ci li mu doon liggéey waaw daf ci daan jaamu muy liggéey ci jaamu yàlla jaamu yàlla bi mooy képp ku nga xam ne rek ñëw na ko di soxlaam rus na bàyyi la nga dem te fajalu la sa soxla hmm. donc mu nekk aussi parti socialiste bi mu nekkee parti socialiste après ci la ñu créé avec l'acte de la décentralisation la création des communes d'arrondissement bi ñu nekkee ci commune d'arrondissement yi les gens ko il faudrait que nga dem Médina pour euh, présenter wu à l'élection nekk maire mu ñëw boobu ñu créer benn am na benn structure bu ñu créé woon boobu tey Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi le directeur général de la caisse de dépôt de consignation il était inspecteur moo doon le président de cette de ce mouvement là que Souris avait créé mouvement bi di dox di dox di dox di dox ba ñu war a présenté wu à l' élection de maire ñu dem ak le vieux Ahmed Diène mais bi ñu demee ba vieux Ahmed Diène présenté wu ne dafa bëgg. te mhm. le président Souris retiré wu. mais ñu ñun sax dañ ko mere woon ñëpp dañ ko mere woon. ah parce que mooy li ma lay wax ñu nitu kersa la. Hmm. du xëccoo. lu taxoon mu retiré wu dafa amoon relation particulière ak kooku. waaw dafa amoon relation ak Ahmed Diène ñoom ñoo bokkoon Médina. mais da wax ni aussi Ahmed Diène kilifaam la magam la. donc du xëccoog moom dara. Hmm. donc gis nga li ma lay wax. waaw donc loolu moo doon kersa moo tax politique amu ci sax lu mu waroon am ci politique amu ko ci parce que daaw xëccoo. Hmm. waaw lépp lu ñëw loo war lu mu war a xëccoo da koy bàyyi waaw da wax ni yàlla yàlla lépp yow la yàlla war a def kii ko depuis. Hmm. bind na ko bu yàgg. donc xam nga loolu il faut nga am diine wala ñu yar la. ci loo xam ne du la jaaxal du du fees sa bët. moom loolu moo taxoon comprendre loolu yëpp mu bàyyi woon ko nekkoon aussi euh, sur le plan politique mais n'empêche mu continuer ci lañ nommé le président Ahmed Diène comme euh, maire de de de de de comment dirais-je maire de maire euh, de de la Médina donc mais n'empêche après nag il s'est retiré un peu de la vie politique hmm. parce que politique bi dafa demoon ba après y trop d'intérêt alors que politique bi moom ni ma ko gisee woon mooy da ngay ñëw di liggéeyal pour sa cité pour sa askan moom vrai politique daal la doon def. waaw voilà moom parce que la politique à la base loolu la. voilà njëriñ politique à la voilà mm-hmm. il y l'approche communautaire de base. Mm-hmm. parce que il était près des populations de la Médina. Mm-hmm. il était près mooy que au niveau des ASC il il aidait ASC. amuloon fii jekkoolu dëkk wala Damels wala Kusum wala Mbotikpom wala non non il aidait toutes les ASC de la Médina. il les soutenait ci li ko yàlla wërsëgale. donc loolu moo lay wan donc moom. en dehors de sa générosité mais amoon na aussi esprit d'ouverture hmm. amoon na aussi esprit de dialogue parce que hmm. il aimait la contradiction dañ daan toog maa ngi moom nii il aimait la contradiction hmm. c'était un c'était quelqu'un qui aimait la contradiction ba pare nag il était fidèle en amitié parce que man ñi ma ko le colonel Jackson ñoom Ir Diagne ak safaram bi taala xam ne moom la àndal ba muy génn àdduna comprendre ak euh, magi ni Majib Sène ñooñu ak colonel Drago dem si yàlla si donc loolu moo lay won ni ñoom amoon nañu dañu amoon benn groupe bu ñuy wax le les les les les les les amis de Dakar. Hmm. waaw xam nga le club des amis de Dakar ay ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo bokkoon génération ñoom ñoo doon ànd loolu mooy xam nga dañ lay wax ni man ci moom laay jëlee référence que sa xarit dëgg-dëgg mooy sa promotionnaire de classe. Hmm. wala sa sa sa ami d'enfance. Hmm. parce que ñooñu da di xamante bu lu yàgg-yàgg bi nga nekkulee dara. dëgg la. toujours daf ma ko ànd bu lay doon souvent. voilà ànd bu dëgg la doon doon donc mm-hmm. moom référence woon ci côté boobu parce que loolu aussi dala ci yee yee ci aussi tataan la ci ba jàngal la ci lu loo xam ne di ko jàng ci moom ba pare dafa amoon diine. Mm. man loolu moom moo doon gën a frappé ci président Sow président Sow lu mu xat xat xat xat xat xat xat bu julli jotee mm. day bàyyi lépp lu mu lépp lépp lu mu doon def. Mm-hmm. wala nag des fois nag cinq bi. da mm. koy seet si nga tardé. ah non parce que bu yoboo nga xaar xaar timis ba timis parce que leen bi waaw parce que kurus gi moom du ko bàyyi hmm. salaatul faatee salaatul aana bi du bàyyi kurus gi waaw bu tàkkusaan jotee moom boo ko doon seet si moom su yoboo nga xam ne moom timis nga koy timis nga koy am ajjuma ma nga woon ca xadara ba yo moom dégool mu la moom xadaratul juma <laughs> man que ñi ma gën a initié ci xadaratul juma ci la bokk hmm. moom danaan sax xadara këram këram danaan invité a nit ñi ñëw dóor xadara këram hmm. donc loolu moo la doon woon déggoo la lii di lii di tam xarit Euh, ak euh, laylatul xadar mm-hmm. dañ ko daan feete fële këram ga nekk yeen mm-hmm. tubaab jalaw fanaan kër goo xam ne loolu rek lu diine rek nga fanaan kii mm-hmm. yàlla yóbbu na ko ci bis ba mu fonkoon muy àjjuma 25 février voilà àjjuma voilà. aha alors Mbaye Jacques ni ñu ko tàmmee nag euh, dañuy waxtaan itam euh, ci ay jikkoom pour que euh, jeune génération bi mën a capter loolu donc ñu dugg ci ay jikko yi El Hadj Malick Sy Souris président Malick Sy Souris yàlla na ko yàlla yërëm yokk wàcce yërmande ci moom lan la ñu mën a jàpp ci ay jikkoom yoo xam ne tey ndaw yi boo leen doon digal moom nga leen di wax ñu ñu copier. jikko jikko Malick Sy Souris d'abord. Hmm. mooy parce que yar woon na amoon na kersa boo xam ne du sigi xool nit mm. imagine vous nga nekk kilifa nekk ministre mm-hmm. yàlla may la façon nombal baat bu nekk mm-hmm. mais chaque jour boo man su ma la waxee benn affaire doo benn jour mm. mos naa dem kër yaayam ñu toog nii di kii ci bunt bi di waxtaan mm-hmm. après yaay ji jóg ci chaise bi di dugg ci biir euh, président ma bëgg a jël chaise bi yóbbu ko président ne ma non bàyyi man maa yóbbu chaise bi mm.

donc référence boo xam ne la woon. Mm. amoon na diine. Mm-hmm. yar woon na. amoon na xam-xam mais am utilité li mu bind ci ay livres moom. kenn mu mm. kenn mënu ko xam. Mm-hmm. li mu bind ci ay livres. ay biographie yooyu li mu bind ci ay livres man mënuma xam ñaata livres la bind. parce que mm. il a écrit beaucoup de livres. waaw mm-hmm. beaucoup beaucoup na ay livres yu bëree bëri bëri bëri bëri la ko Sénégal ameel comme njukkal ci sa xalaat. ñu réhabilité ko tuddee ko dara. bëgg naa ñu réhabilité ko tuddee ko dara dama lay jox benn anecdote rek. Mhm. le président Souris dafa waroon dem euh, bi président Lamine Diack di quitté euh, le le mhm. dafa waroon dem pour nekk le président parce que à l'époque moom moo doon premier vice président. Mhm. bi mu nekkee bi mu ñëwee mu war dem moom ak Ablaye Seye élection mu war a dem moom ak Ablaye Seye élection. jour boobu bu ma ko fàtte moom vendredi man vendredi boobu ay presque këram laa jullee tàkkusaan ñuy def médiation pour mu bàyyi. moom. waaw ñuy def médiation pour mu bàyyi Ablaye Seye parce que Ablaye Seye magam la te vraiment Ablaye Seye dafa bëgg def benn mandat rek bàyyi. Mhm. boobu def naa Ablaye Seye mi waroon am ay soixante seize ans def naa su ma juumulee. d'accord comprends léegi ñu ñëw président Souris président Lamine Diack mu ko seet si. Mhm. ko comme que Ablaye sa mag la bàyyi. ci saa la bàyyi. Hmm. ci saa la bàyyi na bàyyi na. après ci la ma woo man sax j'étais un peu énervé j'étais dans parce que boobu on avait battu campagne on avait fait une bonne campagne une bonne campagne métti ci médiatique yooyu mais mu ne. il na il se il se retire pour son grand frère. Euh, kii Ablaye Seye. dama lay jox aussi benn anecdote dem nañu moom ak Diagne Ndiaye président Diagne Ndiaye élection. Mhm. mu dem ba guddi gi les gens lui ont tourné le dos ak Diagne Ndiaye. ma ñëw ne ko président bul présenté wu mu ne ma dinaa présenté wu ma ne ko non il faut pas bu présenter parce que lañ lay gagné mu ne ma pour des questions de principe damay présenter même si je dois avoir une voix. Mhm. je vais présenter. mu présenté wu Diagne Ndiaye gagné ko il a félicité Diagne Ndiaye et lui donc moom référence woon. Mm-hmm. référence boobu dafa da doon ci ay principe mais amoon na ay valeur amoon na ay vertu mm-hmm. na ay valeur amoon na vertu après ci la ci pratiquement de la scène euh, du sport mm-hmm. après ci la dem fële ni dem euh, euh, créer benn fédération bu ñuy wax pentathlon moderne mu nekk président bi pendant plusieurs années nekk nekk nekk nekk président bi pendant plusieurs années ku mel ni aussi El Hadj Malick Gakou euh, euh, si si référence am la woon. Hmm. waaw référence am la woon papaam la woon am la parce que chaque fois que je discutais avec le président Malick euh, le, ministre Malick Gakou il me disait président il faut faire référence au président El Hadj Malick Sy loolu la ma doon wax chaque fois. Hmm. chaque fois donc da lay wan am na ñoo xam El Hadj Malick Sy Souly marqué na leen durant leur vie. inspiré na leen mais boo doon dem Medina nga def micro trottoir. Mhm. bu ñu la waxee ay qualité man sax a ko wala nga dem ay ñoom ku mel ni Abdoul Majib Sène mhm. nga xam ne ñoom ñaar ànd nañu pendant plus de soixante ans. Mhm. ay xarit wëllëre. ni nga waxee yaram wu sutante moo tee ñu moom waxtaan wi. mais. Euh, waaw jéem nañu vraiment ci ay nitam ay niti dembam surtout mais yow itam doomam nga ku ko jege woon nga te li nga wax ci moom it yëpp wane na ni ku ko ku ko xamoon nga ku jëflanteeg moom itam nga Mbaye Jacques parce que xam nga président mm. dafa amoon humilité bu pare wàccee boppam suufeel boppam mm. xam nga c'était pas parce qu'il était ministre que dafay kii non président amuloon loolu mm. président soo ñëwoon ñu ne la kii ministre wala inspecteur des wala nekkoon directeur général doo ko gëm taalibe bi ñu ko yaree la. ba pare mu nekk aussi taalibe cheikh. Mhm. nekk ku oyof. waaw ñu tuddee ko aussi Seydi Hadji Malick si radiallahu taala anhu mhm. mu nekkoon aussi référence ci dans le soufisme mhm. donc yooyu aussi da ngay dañuy wax ne turandoo da ngay jël ay juróom ñaari jikko ci moom waaw donc macha allah. vraiment le président Malick Sy Souris nekkoon na kilifa goo xam ni vraiment référence la te dañuy ñaan au moins soit le président Macky Sall koñ. Mm-hmm. wala le maire Bamba Fall jël Medina tuddee ko koñ boo xam ni. Mm-hmm. comme ça ñu ko koy fàttalikoo. Mm-hmm. parce que def na fi loo xam ni vraiment waxuma ni kenn defu ko fi de. mais du du neex a suul. parce que li ñuy wax ni suul ker du ko tax a feeñ. du ko teree ba pare coono du réer. dëgg la waaw coono du tey am na loo xam ne bu ko football amee moom moo samp. en tout cas moom moo ko ji. tey bu ñoree ba ñuy meññ moom la. waaw bu ñu am il faudrait que ñu am courage. Mhm. wax loolu. delloo ko njukkal et et il soutenait toutes les activités sportives. Mhm. dem si àll Mbaye Boy Fall. bu daan euh, organiser tournoi de judo. Mhm. à président Souris man lay woo ma ñëw mu jox enveloppe bi ni ma am joxal Mbaye Boy. wala mu jox ko sec ma ñëw ne Mbaye Boy mu ne ma. mane ko ma am naa ci yow yóbbante mënu ma kan la ko président Souris mënu ma non vraiment président Souris mënu ma ko fay. Hmm. moo am na benn boo xam ni wa waa Saint-Louis. Hmm. dañ ko def citoyen d'honneur. Hmm. parce que yaayam fa la jógee. mais n'empêche liggéey bi mu fay def mu la preuve son dernier livre un homme arc moom par exemple biographie am xam nga fi mu jaar ak yooyu yëpp. rendre na hommage Saint-Louis. parce que rendre na hommage waa Ndar parce que yaayam fa la jógee. Mhm. donc loolu moo lay won ni dafa am wóllëre. et il est très très fidèle et loyal en amitié mhm. parce que la fidélité c' est des mhm. il est très fidèle en amitié. te loolu moo jafe tey. nga ñoo xam ne yéen a doon ñoom ay ñoom dem si Jackson colonel Jackson. colonel Sow colonel ay ñoom euh, nu mu ñoom euh, par exemple ku mel par exemple ay ñoom euh, colonel. kii Diouf xam nga ak eh, ñoom Yves Diagne ñoom Abdou Majid Sène ñoom Pa Dam loolu moo lay won vraiment kii ku amul wóllëre la parce que di nga nekk say maas raw leen mais doo leen xeeb mm-hmm. moom noonu la meloon soo ñëwee fekk ko la naas doo xam ndax kii ministre la woon wala dee am na ñoo xam ne tey bu ñu nekkoon ministre mm-hmm. dañuy xuutal xuutal wala tàmbalee aj mbagg <laughs> moom jërëjëf Mbaye Jacques macha allah yal na yàlla uh, leeral bàmmeelam wàcce yërmande ci moom jéggal ko te xaare ko àjjana uh, waaw lépp lu nit mën a yaakaar digganteem ak boromam rek yàlla nag ko borom bi defal uh, ci barke alquran yi nga xam ne gëmoon na ko fonkoon na itam diine ji mu nekkoon muy islam jërëjëf Mbaye Jacques yow itam ñu lay gërëm di la remercier surtout ci disponibilité bi ak xëy na li nga ñu xamal yépp ci ñaari kilifa yi ñu fi waxtaanee jamono yi ñu weesu te nga xamoon leen lool jege leen lool muy président Lamine Diack ak président Malick Sissour mi ñu doon waxtaanee tey fàttali ni conseil technique nga ca ministère des sports journaliste yi nga euh, bokkoon it ci fédération sénégalaise de football cellule communication beeg mbir yu bari daal yoo xam ni yow itam laale nga ko ci tàggat yaram bi ba tax euh, du ñu wër fu sori ndax bu ñu la làmbee rek day fekk li ñuy wër yëpp mu ngi ci yow macha allah yow itam yàlla fay la yow jërëjëf Mbaye Jacques ñu bokk ñun ñëpp ñu bokk ñun yéen ñi doon teewlu dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen fattu Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm jàngeen jëf